soxna Bator moom mooy agsi noonu waaye dugg bi daa mel ni ki oto mooy avancé oto la oto bi daf ko koy jébal. oto bi day ñëw bu mel ni kii oto bi mooy avancé ci biir tànt bi te dina dina yéeme lool dina yéeme dina metti loolu oto bi dafa mel ni kii xëy na addiye la koy def ci soxna Aida Saliou wala boog mu def ko addiye ci jëmmi Cheikh Béthio Thioune soxna Bator moom moo nekk noonu ci 4-4 bi buuxante bi tar loolu waaye tamit xër am na ñu def nànk rek ndaxte képp ku fi ñëw rek seex bi moo tax mu ñëw képp ku fi ñëw Cheikh Béthio Thioune moo tax mu ñëw kon boog nañu ànd ak dal soxna Bator moo nekk noonu ci kanamu oto bi. 4-4 baa ngi avancé da koy ziara ki nga xam ne moom mooy euh, soxna Aida moom moo koy dawalal boppam gis ngeen ko noonu mu mel ni gi nag mi ngi xaw doy waar tuuti ñu bàyyi leen rek ngeen seedaan loolu en direct ci Sénégal actuellement. Thank you. Zumba. mel ni kii soxna yi ñu ngi nuyoonte soxna Ngone. waaw mu mel ne euh, soxna euh, Bator nag euh, ranch la jël ànd ko ba ci kanamu ki nga xam ne mooy soxna Aida Saliou Thioune xamaguñu ndax da ko koy may ndaxte gis nañu ne moom dong moo fi andi oto dugal ko ba fi nga xam bi mooy fala soxna si toog euh, jàkkaarloo ak moom moom nag mu mel ne ñoom ñëpp dañu koo déggoo parce que tey ñoom ñëpp yëre weex lañu sol ah. te xam nañu ne weex dafay euh, symboliser li nga xam ne mooy euh, symbole u mooy jàmm kon nag soxna si agsi na gis nga ko noonu mi ngi noonu ànd ak ak soxna Aïda Saliou waaye soxna Ngoné boo gisee ñu jël oto bi nii décoré ko nii mu rafet ba dee ah. xam nga ne lii cadeau la ah loolu de wax dëgg yàlla ama amaguñu lu ñu ah, la waaye daal marque waaye daal ñëw na moom moo fi nekkagul léegi daal xanaa ñu jéem a xaarandi ba xam ndax day yëkkati caabi jox ko wala bokk dina def li nga xam ne moom mooy déclaration ngir édifier nit ñi parce que gisuñu ne oto bi war na fee am place am ndaxte ñoom gis nga ñëpp an nañu oto mais dañu ko yemale fi nga xam ne mooy ci biti waaye moom otoom ñëw na rek ba fi nga xam ne ah, moom mooy ah, fii soxna si daal di toog léegi ñu daal di eh, taaxeelu tuuti rek xaar ba xam ah, soxna si lan la ci jublu. Hmm. ñu xaarandi eh, fan la ci jublu. mu mel ni kii oto bi bi mu duggee ci biir ba tey mbir yi dafa xaw yëngu nit ñi nañu ànd ak dal nañu teey def ndànk nit ñi nañu teey def ndànk bésub cant la bésub cant àndut ak wax ju bari àndut ak buuxante parce que seex bi bëggul lii na lépp rafet na lépp rafet na ñëpp ànd ak teg na ñëpp ne teg waaw mu mel ni kii nañu xool oto bi fan lay mujj soxna si ñu xaarandi ñu bàyyi déglu tuuti ambiance bi